la kan di wax ne il sera ici en tant qu'allié du président Ousmane Sonko et non en tant qu'avocat pour que nit ñi mu leer ci seen bopp di ko jaajëfal bu baax ci taxawaay bi di wax rek ne mbokki Sénégal ndox du bàyyi yoonam te président Macky Sall defati na mëninam ndax fii mu jaarale tey le candidat le président Ousmane Sonko noonee la defoon 2019 ñaar ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay adversaire am à l'époque muy Khalifa Sall di Karim Wade di wax ne président Macky Sall bi mu toogee ci réew mi ba léegi amul benn élection bu mu fi organisée bu légitime il a toujours violé la volonté populaire 2017 bi muy organiser élection législative dafa financer 47 listes de transhumants fantoches yoo xam ni léegi ñu ngi ci booram moom ne leen dugg leen ci processus bi kenn ku nekk defi liste mu biaiser le jeu électoral yemul ci loolu ca loolu la sukkandiku ne léegi comme liste yi dañu bare na juróom kese voté mu jóge ci loolu tàbbi ne coow li bare na carte liste yi dafa bare nañ dem ci parrainage senegale yi xeex ñu jàpp fi ñoom Guy Marius Sagna Dame Mbodj mi ak keneen ak keneen waaye boobu xëy na ñu bare xippeeguñu woon dañoo foogoon ni mbir mi mbiru ñenn ñi la du mbiru ñëpp tey ñëpp parrainage la ñuy jooy dinaa ci ñëwaat 2022 ñu organiser élection législative mu daal di tiq list titulaire bu opposition bi Yewwi Askan bi lépp ndax lan empêcher le candidat Ousmane sonk mu am immunité parlementaire ndax booba mu ngekk ci benn projet jëm ci kawam te xam na moom fi mu jëm waaye loolu itam damay wax kan moo ci nekkoon complice am une partie de l'opposition ak conseil constitutionnel mi nga xam ni ñoo ko validé woon waaye yemul ci loolu yemul ci loolu ndaxte dama tëb 2019 ndax 2019 dafa écarté ay adversaires politiques am wax naa ko léegi kan moo ko ci jàppale conseil constitutionnel ak ay jurisprudence yoo xam ni tey wëlbatiku nañu la ñu waxoon ay le rabat d'arrêt n'est pas suspensif maintenant le rabat d'arrêt est suspensif génne la ci carte ci carte électorale ay article L30 l lan lañ ci lan moo ko mbubu muy dialogue waaye yemul ci loolu ba tey 2022 2022 bi mu bloqué liste ba pare mu ñëw 2024 2024 mu organiser nag opération maa tey maa tey jël 260 candidatures yoo xamante ne caaxaan faaxe la sànni leen ci liste bi togg ba mu neex ko mu def ci ay pré pré admis 93 pré admis waaye loolu yëpp benn kese moo ko ci amoon in importance muy bi tax coow li am muy candidature bi nga xamante ne moo tax conseil constitutionnel mënatul sax appliquer propre jurisprudence am yi mu appliqué woon ma Samba ak ma Demba ak ma Paate mais fii il faut mu invité wu inventé wu waat créer ay yu bees mooy conseil constitutionnel su demee ba moom war a wax ci li nga xam ne mooy processus électoral bi ñëw amul lu muy teg ci loxo sénégalais yi lu dul candidat bii ma tere woon barki démb ne ko du bokk ndaxte ay papier dafa manqué nangu naa léegi ni papier am manqué wul ndax coobare administration la jox jox naa ko dëgg ci kaw administration jox ko dëgg ci kaw Sénat mais nag danaa dem laqarti leneen loo xamante ne dama ni samay prérogative la mais nag encore une fois dafa am ñu ko ci jàppale. fii nag dama bëgg ngeen remarqué bu baax kan moo jàppale waat conseil constitutionnel Henri Ciré Ba cour suprême ci lu conseil constitutionnel wax na ñoom ñoo ko yët dossier bi nga xam ni moo tax ñu war a téye le candidat Ousmane Sonko dossier boobu ñu wax ni dañ ko war a téye ñu dossier diffamation Sénégal xam naa ni fii kenn waxu fi kenn lu mu xamul mais du tere ñuy taxaw ci mbir yi dossier bi ñu ne moom moo tax président Ousmane ko bokkul ñu dossier bu ñu àtte le 4 janvier dernièrement tey la ñaata 22 janvier le 4 janvier bi ñu àtte dossier boobu fekk na 25 jours plus tôt déposé nañu les dossiers au niveau du conseil constitutionnel fekk na plus de 68 jours avant processus électoral bi commencé na ndax depuis le 28 octobre la démarré le 28 octobre le processus électoral commencé le 4 janvier benn décision ñëw conseil constitutionnel nañu décision boobu am na capacité rétroactive ba tere candidature président Ousmane Sonko bokk dama ni mbokk yi conseil constitutionnel ay pyromane lañu conseil constitutionnel c'est le danger de ce pays ils ont perdu tout respect ils ont perdu toute crédibilité pour arbitrer cette cette élection là ay la yow nag c'est pas la première fois wax naa leen ko ci seen processus 2017 ba léegi lu président Macky Sall bëgg a def ci seen loxo la koy daganalee avec la complicité d'une certaine opposition qui n'a pas compris ndaxte nag lii yëpp nu ko président Macky Sall di lewalee mooy ci ay dialogue la koy jaarale mooy ci ay ci ay waxtaan la koy lewalee ci la koy ci la koy teg ba nit ñi foog ne lu amal njëriñ njëriñ la mais au finish lenn kese lañ ci mun a retenir xam ngeen mooy lan mooy une volonté manifeste de violer le suffrage du peuple sénégalais, une volonté manifeste d'orienter la destinée d'un peuple. def nañ ñu ko 2017 def ñu ko 2019 def ñu ko 2022 tey ñu bëgg ñu ko def 2024 mbokk yi ñun est-ce que pare nañu est-ce que pare nañu tey bi may wax ak yéen du ñun ñoo choisir bisu tey bi tey le 22 janvier 2024. 22 janvier 2023 un an jour pour jour lañ tase woon fële ca Kër Massar defoon li ñuy wax le pacte de Kër Massar avec le président Ousmane Sonko pacte boobu lan la wax mooy ñun ñëpp pare nañ pare nañu pour jàmmaarloog le régime du président Macky Sall pare nañu pour sécuriser le projet pare nañu pour libérer le Sénégal j'ai pas dit pare nañu pour taal Sénégal attention pare nañu pour libérer le Sénégal dafa am lu mu laaj beaucoup de gens pare nañu pour dem élection waaye est-ce que réellement pare nañu ndax élection nag ku ciy dem processus bu transparent moo la fa yóbbu élection ku ciy dem yor sa carte baax na carte yi moo wóor ñi ko jëlee gul nañ ko jëli mais bu ñu jëlee carte yi bu ñu choisiree candidat yi bu ñu choisiree urne yi na fekk ne pare nañu pour sécuriser suñu ay vote na fekk ne pare nañu pour que suñu vote bii ñu décidé ni moom moo mën a libérer suñu ay prisonniers politiques kenn du ko foqati kenn du ko sàcc parce que mbokk yi ay sàcc la ñu amal affaire ay mafia la ñu amal affaire ay njublaag la amal affaire benn bande la ñu amal affaire boo xamante ne ñoom ci seen biir kenn ku nekk da ngay jox sa moroom le relais te loolu nag jàngaluñ leen ko ci la ñu dund depuis le début ba léegi. ndaxte nag gis nga cette bande là tey ki ñuy wax le président Ousmane ko devant lui ils ont échoué sur tous les plans la DGE a échoué parce que daf ñu bañ a jox nos nos fiches le conseil constitutionnel a dit qu'ils avaient tort malgré qu'il sama CODEB euh, ñi ci topp dinañ ko leeral am na dëgg ci kaw DGE am na dëgg ci kaw Sénat mi waroon a yëkkati ficham jox ko ko ndax conseil constitutionnel moom moo ko wax mais pourtant kenn réparé wu ko ci mais président Ousmane Sonko au delà de là dafa am dëgg ci accusation de viol yi nga xamante ne mujjiwul fenn accusation de jéem ko yàq daram jëm ko jëm ko persécuter mu jugul fenn loolu yëpp tamit dañ dañu échoué ñoom ci loolu échoué ci contumax échoué ci ci ci radiation barki démb devant les juridictions de Sabassi Faye et de Justion ils ont échoué surtout maintenant nag ils se rabattent sur notre volonté ak notre capacité ñun de choisir donc la balle et dans notre camp est-ce que pare nañ est-ce que ñun jaral nañ parce que nag pacte bi ñaar la woon kenn ki dafa def engagement ne def naa sama testament et j'irai jusqu'au bout kaso moo gën a tuuti ci li may dund moom mu ngi ci kaso bi ñun ñoo des ci beneen pacte bi ñun ñi nga xam ne ñoo war a tey taxaw pour génnee ko foofu génne foofu les mille et quelques détenus politique benn yoon kese moom moo am benn yoon kese lañu am mooy si chemin démocratique moom moo nekk suñu kanam parce que on a essayé les autres chemins la résistance le combat démocratique le combat pacifique mais on a enterré nos morts et jusqu'à présent il de de de de de d'enquête y a pas eu de justice donc lii moo fi des lii moo suñu kanam nañ ci dem waaye nag buñ ciy dem dafa am lu ñu war a fagarloo dafa am lu ci war a demee parce que bu dul loolu boo lëggee yuuxu dina dina jib fi nga xamante ne euh, foogee wuñ ko woon juste pour wax ni jamono ji ñu toll jante euh, président Ousmane Sonko li mu jaar ak li mu dund kenn dootu ko waxati ndax sénégalais xale yu tuuti sax xam nañ ko ndax moom kaawam 2016 la commencé ñëpp xam nañu fu mu jaar ñëpp xam nañ persécution bu ñu def ci moom mais tey fi ñu toll nii il faut que les gens arrêtent de se tromper ce n'est plus le problème du du président Ousmane Sonko c'est le problème du Sénégal parce que ces élections ce ne sont pas des élections pour élire un président de la République non non c'est des élections pour en finir avec un régime pour en finir avec un système pour en finir avec des méthodes yu nga xam ne ça ne peut plus durer c'est ces méthodes qui ont amené le peuple sénégalais donc ku nekk dafa war a jàpp ni mbiru boppam la mais aussi c'est des élections pour ne pas que ce pays sombre pour ne pas que ce pays bascule parce que ñii ñëpp ma fi lim léegi DGE Sénat CDC Conseil constitutionnel Cour suprême kenn ku nekk ci ñoom tu as été complice des forfaitures à un moment donné de l'histoire politique du Sénégal et les Sénégalais prennent acte ñii ñoo wax ne bu ñu jógee ci processus bi jàkkaarloog ñoom après les élections Conseil constitutionnel bii moom moo wax ne moom mooy validé après Cour suprême moom mooy taxaw ci kanamam ñu waat ban légitimité la conseil constitutionnel mën a am pour arbitrer ak pour taxaw ci kanamu processus bi DGE mi nga xam ni conseil constitutionnel ci boppam décrédibilité na ko décrédibilité na ko ban crédibilité la mën a am pour continuer ci processus bi question bi kenn ku nekk dañ ko koy delloo kenn ku nekk da ci am wareefam kenn ku nekk daf ci am responsabilité du ma guddal wax bi parce que ñi war a jël parole dañu dañu bare li may tëjee rek mooy di laaj ndax réew mi daqaar daf fay jeex wala ñun dañoo ñàkk ci fulla guñ koy jëndee ndaxte léeg-léeg dañuy jaawale nangu dogal gëm yàlla ak di nangu tegoo loo xamante ne yàlla tegu la ko sa moroom moo la ko teg opposition bii ñu nekk nii lépp lu fi am boobu ba léegi am nañ ci responsabilité ndax heure bu ñu écarté kenn ci ñun ñeneen ñi foog ni mbir mi leer na pour ñoom damay inviter les uns et les autres à mettre le Sénégal devant et à comprendre que fi ñu jëm unité kese moom moo ñu fay jëlee fi ñu jëm ànd booloo fàtte suñu ay bopp kese moom ñu fay jëlee ndaxte nag fii ñu jëm bu ñu ko rate Sénégal dinañu ko ameel dinañu ko ameel dinañu ko ameel àq askan wi ñu jéppi parce que nag on a l'occasion d'en finir avec ce régime une bonne fois pour toutes pas pour nos petites personnes mais pour l'intérêt du Sénégal donc kenn ku nekk na xool ndax dafay uti euh, garabu Dakar wala ndax dafay delluwaat làmb fitam xool taxawaay bu mu war a taxaw ci diggante bi nga xamante ne yàggatul dara mais diggante bu am solo la parce que lépp luñ fi wàcc rek bu soobee yàlla bu ëllëgee dinañ ko rëccu ma def ci benn résumé bu ndaw rek en français juste pour dire que ce qui nous ramène ici c'est juste ce n'est pas de refaire le bilan de ce que le président Ousmane Sonko a subi comme injustice parce que il ne l'a pas subi à son nom propre il l'a subi au nom de tout un peuple et de tout un, groupe de tout